وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk auditeurs yu xam sa diine ñu ngi leen di nuyu ci nuyu lislaam di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci weer yu màgg wii ñu nekk mu jàppandal ñu ñu mën koo jaamu mën a taxawee lii di suñu koor taxawee lii de suñuy naafila ci anam ba mu gën a rafetee yokk ci li ñuy jàng alquranul karim tey nag mbokk yi dañu ànd ak yéen ak al ustaaz di cheikh Ibrahima Khalil Lo ci waxtaan wu am solo waxtaan wu aju ci daaful iman waxtaan wi ñu ngi aju ci lii di uh, ngëm yàlla gu faible te yaakaar naa koor wi occasion la pour nit ki mën a waat li nga xamante ni moom mooy ngëm yàllaam ci kaw loolu ci lañ leen di dégtale waxtaan woowu bu solo borom subhaanahu wa taala di fàttali way déglu xam sa diine ci ne tafsirul quran al karim bi ngeen doon ànd ak al imam Hassan Sa dafay woy di continuer chaque jour ci weeru koor wi incha allahu rabbi ñu leen di ñaax ngeen euh, di déglu li nga xamante ni moom mooy tafsir bi tey tamit lii de salon bi dafay ubbi lu jàpp dix heures ti suba jëm ba dix heures ci guddi incha allah rabbi am ay waxtaan yu nga xamante ni dafay jaar waxtaan en direct lay doon képp ku am laaj boo bëgg a laaj mën nga ko poser directement incha allah mbokk mi daal di lay tontu kon dañ leen di bàyyi ak al oustaz Ibrahima Khalil Lo ci waxtaan woowu am solo bi di daaful iman di ngëm gu feebal ngëm gu wàññeeku kon oustaz tafaddal mashkura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 sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayuha al ixwatu alkiram asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel itam ci daara ji nga xam ne suñu boroom tabaraka wa taala mi ñuy defal jàppandal ay at muy am te itam ay njëriñ yu bari di ci génne al na ko gàll la gën a yaatal gën koo jàppandal gën koo saxal itam gën a yaatal njëriñ yi ciy génne bunt bi mbokk wax ne nañ ci fàttalante tey mooy alqarabu ruuxi wa inxicaasatuhu ala al afraadi wal mujtamaat alqarabu ruuxi mooy ruux boo xam ne bu wéet la bu wala bu manqué la la nga xam ne moo ca war a nekk ak manqué googee nag wala wéet googee mu wéet ca ca waroon a nekk ni muy feeñee ci nit ñi kenn par kenn waaye li muy feeñe itam ci mbooloo yi muy société yi loolu la buntu waxtaan dëgg la mbokk yi ñoo ko tëdd tëgge noonu alfaraatu ruux yi waaye ci waxin yu gën a miin ci sharia ci waxinu lislaam mooy al imaanu daif mooy daaful iman loolu moom ñëw na ci xadis wa dalika adaaful iman kon al imaanu daif moom am na donte maanaam yi itam loolu lay ëpp waaye nag istilaah shar'i bi moom moom boobu moo gën a rot waaye teewul nag maanaam yi itam loolu lay firi ñu xam ne doomu aadama ci dund bi muy dund dafa am ay aajo yu muy aajowoo am ay jàkkuteef yoo xam ne itam yu muy aajowoo la ak dundam du mën a jub mën a sax lu dul ne dafa am jàpp ndalu mën a amal ajo yooyu ak jàkkuteef yooyu aajo yooyu nga xam ne daf ko aajowoo ci dundam mënees na koo séddalee ñetti xaaj benn xaaj bu ci nekk nag am na taxawaay bu muy am melokaan bu muy feeñal ci jëmmam ak ci dundam boobu muy dund te ñetti xaaj yooyu itam dañoo jàppaloo benn bu ci nekk day mott leen teg ba ca xaaj bu njëkk bi mooy al ihtiyaajatul maddiya muy aajo yi nga xam ne aajoo na ko te muy wàllu lu ñu mën a jëmmal lu ñu mën a matérialiser loolu di aju ci yaram bi ci dundu doomu aadama bi mel na ni muy aajowoo ñam ni muy aajowoo koddaay ni muy aajowoo dëkkuwaay ni muy aajowoo am faj ni muy aajowoo itam ànd góor ak jigéen aajo ixtiyaajaat la yoo xam ne daruriya la mooy lu mënta ñàkk la ci dund bi wala su ñàkkee dund ba dana ñàkk dal moo xam ca nit ka ci boppam la wala ca biir mbooloo ma la loolu tax ñuy gis ne ak ñàkk ak xañ su amee ci biir société bi koo xam ne yii ñu lim léegi moom ñàkk na ko jafe na ko lool doonte ab xaaj bu néew la ci biir mbooloom mi waaye am na ci benn benn yoo xam ne lu ñu lekk wala lu ñu sol wala ku ñu dëkk wala lu ñu fajoo wala lu ñu dence soxna wala lu ñu ko yoree jafe na leen loolu dana andi ak ñàkk ak dal ak ñàkk jàmm ca biir mbooloo ma yépp ndax loolee mu ñàkk fokk muy jéem a di ko wut te biir wut googee mën naa am mu yàqalaale ca ñeneen wala mu lor leen ndax loru nga mu loroo tax xaaju ñaareel bi mooy al mutatallabaat al aqliya mooy yi nga xam ne am xelam moo ko laaj xel bi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko baaxe doomu aadama xel moomu nag dafay laaj xam-xam mooy tax mu mën a dund mooy tax mu mën a dox ni yaram bi aajoo ñam bi ak naan gi noonu la xel mi aajowoo xam loolu moo koy may mu mën a xalaat xalaat bu libre waaye dafay aajoo itam ay jumtukaay yoo xam ne yoo yoo lay dimbali ko ci mën a amal xam-xam boobu ak xalaat yooyu moom itam lu mënta ñàkk la ci dundu doomu aadama boo seetee sax moo jiitu lépp même aajowoo boobu ñuy aajowoo ñam beeg yu na demee yi yaram bi aajowoo li muy am am solo li xel mi aajowoo ko ëpp solo ndax su xel mi amee lim war a am mooy jàpp ndal yaram bi am lim war a am parce que suñu borom tabaraka ba mu bindee doomu aadama rek la ko dal di teg ci yoon woowu la mu ko njëkk a defal mooy ko wa allama aadama waaye la ko njëkk a defloo itam mooy xamle fa qaala yaa aadamu am bi hum bi asmaihim kon xam lañ ko njëkk a defal xamle lañ ko njëkk a defloo mu lay xamal ne aajo teel la ci dundu doomu aadama borom bi dana wax ne xalaqal insaan allamahul bayaan moom moo bind doomu aadama waaye moo ko xamale kam ak mën a biral ak mën a leeral li nga xam ne moom la xalaat wala moom la fat mu mën koo leeral yeneen moo tax doomu aadama bu ñu ko xañee aajo jooju mu aajowoo ci wàllu xam nga xam ne ci lay mën a amee xalaat bu libre bu boobaa dafay daal di ñàkk xaaj bi gën a mag bi gën a nekk fondation ci ak nitéem daf koy daal di ñàkk boobaa du mën a yëg benn teraanga du mën a yëg itam benn noflaay xam ñetteel bi xam ne nag wala yi nga xam ne ruux dana ko aajo woo nga xam ne moom nekkul maddiya waaye maanawiya ndax insaan muy doomu aadama ni ko xamee ruux la ak yaram muy jëm ji yaram mi ni mu amee aajo ruux gi itam noonu la amee moom itam ay aajo te aajo yooyu nga xam ne moom la rox yi am dafa am jeexital ju mag ci wet gi nga xam ne mooy wetu matériel gi nga xam ne moom la yaram bi soxla bu fekkoonte ne ixtiyaajaat maddiye yépp daje na mu yi ñu aajoo ci wàllu matériel waaye muy dund alfaraax ar ruuxi bi ñu wax muy ruux gi moom lim aajoo amu ci dara wal joox ar ruuxi ruux yi mi ngi xiif boobaa ab dundam du dal ab dundam du ndokkeelu ab dundam du fexe ruux yi nag ñi mu aajowoo mooy attumanina walsiqa walrida wa raxatu damiri walwujdan day aajowoo ak dal attumanina day aajowoo kóolute waaye day aajo rida muy ngërëm muy d'accord ca la mu nekk mu neex ko mu gërëm loola lu ñu ko forcé waaye am na ca rida mu amit raxatu damir maanaam téexu xol ca la amul ca dara lu muy làq wala lu mu ca gëm te mënu koo wax mënu koo dund wala lu ñu koy loo di ko ko gëm loo te moom fekk na gëmul loola rox gi day aajowoo raaxatu damir boobu muy féex ak dal gu ma tëkk ci li mu gëm nga xam ne ci la am xanaa loolu la jàpp ne mooy li dëggu mu man koo dund man koo wax loola bu boobaa ci la rox gi di am tuma nii yi nga xam ne ñooy maddiyaat yi nag muy matériel yi yooyu mënta may doom aadama bi texe googu nga xam ne moom la ruux soxla ak dal googu nga xam ne moom la soxla lu matériel bi bari bari yi yaram bi soxla lu mu doy doy dundu baag dëkkuwaay yaag waruwaay yaag wér-gi-yaram yépp lu mu doy doy te fekk na ruux ci moom li mu soxla amu ko matériel boobu du ko ko mën a jox du ko ko mën a matalal te bu boobaa kon doomu aadama bi texewut ndax li nga xam ne moo ci ëpp solo ci ñetti xaajam yooyu muy ruux gi moom la mu war a am amut loolu tax ruu doomu aadama fokk mu nekk fawxal madda fokk mu tiim wàllu matériel fokk mu jokkoo ak kattan gu mag gi nga xam ne mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi nga xam ne moom amul yemuwaay ala kulli shay'in qadir fokk ruux gi jokkoo ak kattan googu ci gëm ko ci di ko dimbandikoo bu boobaa dana tiim wàllu matériel yooyu boobaa lu matériel yi manqué manqué sax te ruux gi moom jokkoo boobu am ci moom li mu war a am mu am ko bu boobaa du tee doomu aadama bi dana am texe gu ma tëkk doonte wàllu matériel bi muy dund baag yaram bi soxla bari na ca yoo xam ne eggul fa mu war a yegg wala fa ca ñeneen ñay yegg ndax bu boobaa sax moom duutu aajo woo muy egg fu kawe du koy gàllankooraat bu boobaa lu mu ca am rek la ca mënta ñàkk rek la cay jël daruriya ba rek lay jël waaye la nga xam ne ay kamaliyaat la moom duut ko soxla sax bu boobaa doomu aadama suñu borom tabaraka wa taala fa néew doole yuridullahu an yuxafifa ankum wa xuliqal insaanu daifa yàlla daf leen a bëgg a waye xalal ndax doomu aadama dafa néew doole dafa nekk daif ba tax yi jàpp ni rek yàlla da koo jàpp ndalal yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla ak jàpp ndal la bëgg ci yéen ndax bu jafee rek du ngeen ko man doomu aadama day ak lottam ak sëleem ànd ak lu mu mën a am ci wàllu jëm kanam ci wàllu xam-xam ci wàllu gëstu ci wàllu technologie fu mu ci mën a yegg du tee tële googu ak lott googu day ànd ak moom loolu la koy xamal mooy li nga xam ne moom li ñuy tuddee alkawaaris ak tabiiya yu xew-xew yi xew ci àdduna bi suñ borom di ko xewal muy suuf yi yëngoog volcan yi tàkk fayadaanaat yi muy géej géej dex yi wal ak asir yi muy callimeer yi ngelaw yu am doole yooyu bu yàggul rek am bu ci jaar ci Amérique am ak fi ñu yegg lépp ci wàllu science ak wàllu technologie lott nañ ci kanamu kattan googu di kattanu suñu borom tabaraka wa taala bu boobaa day lott lott goo xam ne du mën a maîtriser sax boppam ak yi yëg-yëgam day jaaxle day tiit doonte sax mi ngi ci ak wér akub cawarte ak yim soxla ci matériel yëpp mu am ko waaye du tee léeg-léeg ay feebar dikkal ko ay jàngoro dikkal ko ak mage ak màggat dikkal ko yooyu mënu ci dara ak lu mu jékki-jékki dund beeg lu mu mën a faju yooyu yu ko not la yoo xam ne faw day ñëw ci moom wa huwa alqaadiru fawqa ibaadi yàlla mooy ki not ci kaw jaamam lépp mënuñoo génn tërali na bopp bu nekkee ci digg mbégteem nekk ci digg kontanteem itam léeg-léeg aw tiis aku naqar daal di koy dikkal te du ko sañ a bañ kon doomu aadama noonu lay wëlbatikoo baynal xaalaat al muxtalifa diggante ay melokaan yu bokkut yoo xam ne amu ci ak sànn mënta gardeel boppam benn xaala boo xam ne danaan bii rek mooy continuer ku sañoon kon ak wér rek mooy wéy waaye feebar du am mbégte rek mooy am waaye njàqare ak naqar du am am rek mooy am waaye ñàkk du am waaye yooyu doomu aadama mënu koo saxalal boppam ba ko neexul su ñëwee itam mënu koo dàq mënu koo jëñ yëg bu xóot boobu nag nga xam ne doomu aadama da koy yëg ci mbiram ni mu day saloo maanaam ni mu limité woo ak yëg bi muy yëg ak tële loolu moo koy waral muy gëstu an masdaril quwa wal qudra mu yëg ne moom mii aajo woona kattan goo xam ne xaarijee la bu ko génn goo xam ne bu muy war a dimbandikoo la su ko defee ngir mu man caa amuk dal ci takkoo gu takkoog loola ci gën ko ak di ko wékk ak mbiram su ko defee ay yaakaaram ak i mébétam mu koy mën a ya nga xam ne tële ci moom waaye am beneen kattan boo xam ne bu ko jënd la boo xam ne ca lay yaakaar ca lay yaakaar a jot amul pexeer loolu lay yaakaar ne mën na koo amalal loola la mu ragal te jàpp ne mënu cee muccal boppam loolee muy nga xam ne bu ko jënd la moom lay yaakaar ne moo ko cay musal yëg-yëg boobu ci doomu aadama nag mooy ak diin mooy aajowoo gi ñu aajowoo kon diine ji nga xam ne amrun fitri la yëg-yëg la boo xam ne dañ koo mooñaale ak doomu aadama fa aqim wajhaka li diini xanifan fitrata allahi allati fatara annaasa alayha yàlla dafa bind nit ñi fokk ñu yëg aajowoo gu ñu aajowoo diine bu ñu réeree nag mën nañ koo bañ tudde diine wala buñ ko tuddee diine it du diine jëwér waaye aajowoo jooju moom nit ñi toog ba yëg ne aajowoo nañ aw ñam di jéem a gëstu lu ñu dañ demee ba xam ne gàncax yi mën a bay mën a xàmmee garab yi nga xam ne meññetam mën aajowoo gu ñu aajowoo lekk ci lañu ñu gëstoo ba am yoo xam ne mën nañ koo lekk ni ñu aajowoo naan noonu ni ñu aajowoo itam fu ñuy fatu ci la ñuy gëstu jaan kerlu ci keri garab ba yàgg ñuy def ay mbaar yàgg ñuy def ay néegi ñax ba fi ñu egg tey ci ay dëkkuwaay aajo jooju rek la ñuy continuer di ko jéem a faj noonu itam nag la ñuy yëgee ni ñu aajowoo kattan goo xam ne xuwa xaarijiya boo xam ne ci la ñuy wékk suñu mbir yi nga xam ne dañ cee tële moo xam yuñ bëgg a jot la wala yuñ bëgg a dàq waaye nag borom bi tabaraka wa taala ni mu taw fiirale doomu aadama ni mu ko jàpp ndalee aajo yépp noonu la ko jàppale itam aajo boobu bu dee yaram bi li muy aajo woo moo ko jàpp ndal kulu min tayibaati maa razaqnaakum kulu min tayibaati maa razaqnaakum yàlla moo nu wërsëgal yu tee yi nga xam ne moom la ñuy nekk fal yanduril insaanu ila taami doomu aadama na xool aw ñamam anna sababna al maa sabba summa saqaqna al arda shaqa fa ambatna fiha habba wa inaban wa qobba wa zaytunan wa naxla wa xadaaiqa gulba wa faakihatan wa abba mataan lakum wa li an'aamikum kon noonu la jàpp ndale aajo jooju nga xam ne moom la yaram bi aajo afara'aytumul maa alladi tasrabuun a antum anzaltumuuhu min almusni am nahnu almunziluun nga fee wax nañu ñam yu jum jóge moo nu ko jox ndox mi ñuy naan itam moo nu ko jox kon boole mi yaram bi aajo muy alxaajaat almaddiya moo ko jàpp la te kenn mënu ko cee moy ku ko ci mooy doo dund ko ne man damay lekk yeneen yu bokkul ak tayyibaat yii boobaa da ngay daal di faatu léegi ba bañ a lekk yi nga xam ne mooy yu teey yu dagan yi di lekk posen wala ngay lekk yeneen yoo xam ne du luñ war a lekk bëgg a lekk xeer wala nga bëgg a lekk weñ doo dund bëgg a weddi yàlla da tax nga reew doo lekk doo lekk yi yàlla saxal ngay lekk ci xeer yeeg yooyu da ngay daal dee léegi naka noonu itam xel mi li muy aajoo ci moom moo ko wàcce moo ko wàcce te mooy lim yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñu indi xam-xam boo xam ne ni mu wàccee woon taw bi mu taxal gàncax gi noonu la yabale yonent yi ñoom itam ñu indi xam-xam bi wa anzala maahum alkitaba walmisan li yaquuma annaasu bilqist anzala maahum alkitab moo leen yónni wàcce ànd ak ñoom alkitab walmisan ak nag al adl muy ak maadute boo xam ne ci la ñuy natt mbir yi kenn ku nekk jël lay sa àq bàyyee keneen ka ca des àqam ngir ñu mën a dund ci ak maam moom itam ku ko fa war gannaaw wut leneen ne kee alko kee moom alkoom day alko bu ñuy tëg bët mu daal liggéey léegi ñu daal koy gis waaye kee fa bàyyi xam-xam bi bàyyi ko ci yàlla ne moom it du jël boobu beneen lay jël moom itam noonu la alko noonu la noonu la dee moom itam waaye nag deewu xel la deewu réer la goo xam ne ña xam ne rek ñoo koy mën a xam waaye ña mel ne moom dañuy defe ne moom ña ngay dund kon borom bi ne xat jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin leer googu nga xam ne moom la xel soxla moom lay niitoo borom bi tabaraka wa taala moo ko wàcce yonent yi indi kon xel itam moo ko jox moom itam alxisaam ab dundam naka noonu ruux itam nag moo ko jox ab dundam alladina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dikrillah ala bi dikrillah tatmainnu alqulub su nga kon wax na alqulub te mooy ar ruux mooy an nafs baat yooyu yëpp dañuy am ku ñu daje ci maanaa mooy di firi rek li nga xam ne mooy alxayaat almaanawiya li nga xam ne mooy dundu doomu aadama bi dëgg bi téye alxayaat maddiya bi danañu taxbiire ko naf danañu tuddee ko xalb danañu tuddee ko roox borom bi tabaraka wa taala dañ ne ci zikrullah lay dunde moom kon nañ la waxee ne yaram bi mi ngi dunde ci gàncax gee xel mi mi ngay dunde ci xam-xam bee roox gi itam mi ngi dunde ci zikrullah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub te Abdurahman as-Saadi rahimahullah ci tafsir aaya boobu mu ne ay yasuulu xalaquha wa tirabuha wa taxduruha afraxuha wa lazzatuha nee na tumaninatul xalb boobu ci zikrullah nee na mooy dindi xalaq bi nga xam ne moom la doon yor muy jaaxle gi bu doon te yaram ba mooy xiif baag maraw metti wa ko doon bëgg alak bu dee ca ruux ga mooy alxalaq wal iftirar boobaa nag nee na zikrullah boobu di xam ne nit ka bu lekkee ba rekk xiif ba dem na bu naanee ba man di mar wa dem na waaye xol ba itam bu tuddee yàlla moom itam jaaxle ga ak déng-déng ga ak baj-baj ga dem na moom itam mbégte ma daldi ñëw ala bi zikrillahi tatma'innul qulub borom bi ne na ngeen yëg ne ci zikrullah rek tatma'innul qulub foofu rek la mën a amee amul leneen wata mu ne ala na ngeen xam na ngeen yëg ne bi zikrillah rek tatma'innul qulub ci la xol yi mën a dale ci la ñu mën a amee li nga xam ne moom lañu ajoo te abdourahman ne ay xaqiqun biha wa xariyun an la tatmainna li cheyin ziwa zikri mu ne mooy xol bi amul dara lu ko mën a dalal lu dul tudd suñu borom tabaraka wa taala fa innahu la shay'a alaz lil qulub wala azha wala ahla min mahabbati xaaliqiha mu ne amul dara loo xam ne gën naa neex ci xol bëgg boroomam tabaraka wa taala wal unz bihi wa maarifatihi ak wétlikoo ko xam wa ala qadri maarifatiha billahi wa mahabbatiha la yakunu dikruha la mu ne ci kem nu mu xamee suñu borom tabaraka wa taala ak nu mu ko soppe nee na noonu lay dëggale tudd nga xam ne borom bi nee na ci la xol bi dale ala bi zikrillahi tatma innul qulub mu ne wax nañ ne innal muraada bi zikrillah liñ jublu sax ci zikrullah fii mooy kitaabuhu alladi anzalahu zikra lil muminin ne zikri bi mu wax ne ala bi zikrillah ñenn mufassiroon yi wax nañ ne mooy téere bii mu wàcce di alquran xam ngeen alquran bokk na ci na ak zikr inna nahnu nazzalna zikr mu ne ci bu dee ci maanaam boobu nag kon tuma'ninatul qulub bi zikrillah mooy su xamee maanaay alquran xami atteem ci la xol bi di dale ndax boobaa ci lay xam dëgg ci biir dëgg gi nga xam ne moo am ak ay firndeem nee na loolu mooy tax xol bi mën a dal xol du mën a dal illa bil yaqin wal ilm lu xam-xam boo xam ne ànd naag yaqin xam ne foofu su fa xasee yegg ci moom mooy yabukaay waaye xam li fekk eggul ci yaqin mën nga caa jóge wat ndax mën naa nekk defe mën naa nekk sikk mën naa nekk njort waaye bu eggee ci yaqin rek foofa nag la yem te borom bi ne kalla law taalamuuna kooku nag ci alquran rek la ko mën a amee moo tax leneen lu mu mën a doon ci yeneeni téere wala yeneeni xam-xam yu doomu aadama di xam te du alquran loolee du ko mën a xel mu dal du mën a dindi xalaq bi muy jaaxle gi nga xam ne moo nekkoon ci moom ndax xam-xam boobee dadul xam-xam bu tax benn barab dadul almal yaqin du nekk yaqin bu melee nii tey bu ëllëgee ñu rombaat loola wala ñu gis ne kat loola ñu jàppe woon ne moo wér ndekete ay njuum teewoon nga woon ca biir muy soppi kooka dem ak dikkat loolu mooy tax du ko mën a may al yaqin du ko mën a may tumaat nii na doomu aadama ak lu mu am am ay moyen lu mu am am ay sabab yu mu mën a dimbandikoo ngir bëgg a egg ca lam jëm du tee muy amug jaaxle di amug ragal ci ne boo wutul mbiram du ànd ndax mbir moomee muy wut da caa am lu nekkul ci loxoom xam nga sabablu yi nga mën a sabablu man caa yaakaar mooy yi nga xam ne ci sa loxo la nekk masalan tey boo doon jàng bëgg at mi mën nga góorgóorlu lool ci li nga mën ci réviser jàng bu baax la sooy mais nag ñi nga xam ne ñooy noté point loola moom ñooñu mënu ci ñoom dara loola du mbir moo mën a def benn sabablu ci ñoom yow li nga mën rek mooy li ñu joxe nga jàng ko sabablu tontu sa kem kàttan foofu la sa mbir yam te mbir ma nag yemul foofu jàll na ci ñeneen yoo xam ne seeni yëg-yëg ak seeni sentiment donte mën naa baax ba pare fat waaye ñu am yeneen yëg-yëg ba jàppe ko lu baaxul loolu mooy tax doomu aadama bi boobaa dana aajowoo beneen kattan bu ne ci bitti boo xam ne ca sukkandiku ca yaakaar mën a am li te loola mooy at tawakkul loolu nag ci ngëm yàlla rek la mën a nekk wa alallahi fa tawakkalu in kuntum muminin ci ngëm yàlla su defee sabab yi nga xam ne moom la ko yàlla digal mu def ko ba noppi nag donte sabab ya manqué na it waaye def na moom lim man du tee am yaakaar ci ne borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moom coobareem lay defee faalu li ma yurid mu yaakaar ne dana ko amalal loolu nga xam ne moom la yaakaar wa man yatawakkal ala allah fa huwa doomu aadama di aajowoo fa mu wéer mbiram su fekkente ne nekkul ku gëm yàlla yeneen yam koy jéem a wéer du doon wéeru waay bu dëgër loolu mooy tax xel ma du dal naka doon itam doomu aadama lu mu am am kattan lu mu am am nguur lu mu am am alal téewul muy tiit ci ëllëgam mu ngi tiit naan nguur gi boo watul ñi may fexeel boo watul ñi ngi may bëgg a coup d'état wutul am na ñu ma bëgg a rey mi ngi tiit rek donte garde yeeg nguur gi dëgër na lépp téewul xel mi du dal bu dee alal ji itam mi ngi jàpp ne léegu ñàkk ko kon ragal googu muy ragal doon na aajowoo lu ko fanqal ragal googu kooku itam ci iman rek la ko mën a amee fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin ba tey iman moo koy tontuwaat foofu bu leen leen ragal yooyu ngay ragal ñi la bëgg a coup d'état ñi la bëgg a yàqal fala taxaafuuhum wa xaafuuni rek ragal leen ma man yàlla mi yore kattan gi yooyu yépp in kuntum muminin bu fekkee nag ngëm yàlla mi ngi ci seen biir xol fokk na nga am ngëm ba pare naka noonu itam doomu néew néew ci àdduna lu mu ñàkk-ñàkk pour mu mën a dund dese dara ci personnalité du tee muy am yaakaar ba tey mais su gëmee ne moom nii mu mel rek lay continuer ci ñàkkam gi ci tumurankeem gi ci néew dooleem gi rek lay wéy daanaka kon duutu bëgg a dund sax ndax kon day wéy rek di nekk ci suufu ñoo xam ne warul woon a nekk seen suuf waaye bu fekkee gëm na yàlla nag lu mu ñàkk-ñàkk du tee mu yaakaar borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy wërtëgal lépp lu nekk ci kaw suuf wa ka ayin min dabbatin la taxmilu risqaha allahu yarsuquha wa iyakum wa huwa samiu alalim fekkee gëm na yàlla yaakaaram tagg benn yoon ak lu mu ñàkk-ñàkk ay moy ak lu mu néew néew doole xéewul mu yaakaar yàlla kon ala bi zikrillahi tatma innul qulub ci gëm yàlla ci la xol di dawe ci la ruux di regge ci lay amee li mu soxla woon ci ab dundam kon doomu dundub ruux ci ngëm yàlla la koy am ndax ci lay mën a amee tawakkul muy wakkiirlu waaye koo xam ne xamul wakkiirlu ci yàlla xamul lan mooy yaqiin muy wóolu suñu borom tabaraka wa doyloo ko kookee mooy dundu alfaraax ar muy ruux boo xam ne bu widd la ruux boo xam ne gu xiif la ruux goo ruux goo xam ne gu tumuranke la bu boobaa li ñuy tuddee al masakil an nafsiya muy ay mbir yoo xam ne dafay gaar bakkanu doomu aadama ngir widd googu nga xam ne moom la ruu gi widd jàngoro ya na muy manifesté woo bokk na ci ay awhaam ay defe-defe wak ci aab mooy dal ak seenewu ak naqarlu lool ak yet mooy nag ak naagu jàpp ne dara du baax wa doq yaqin du wóolu dara wa suuqu saale jàpp ne moom daal dafa amul sens dafa ñàkk muur xillatu xas ànd ak taxabut muy di sañaxu lu mu làmb bu ëllëgee mu génn ca lee bu ëllëgee mu dugg ca jaaxle yoo xam ne du am fu muy yem amraat xalbi yooyu muy jàngoro yooyu nga xam ne nag day feeñ ci xol wala ci roox kii jànkonteeg moom mooy ki nga xam ne moo widd ci ngëm yàlla gu wér te loolu day dëggal li borom bi wax ne wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka dank boobu lay daal di dund bi du tumuraanke ñu ne kon boobaa day ñàkk du am mu lekk wala du am bu déedéet mën na ko am sax waaye lay dund te loolu moo gën a metti mbugalam moo gën a metti mbugalum ñàkk gi nga xam ne ci yaram rek la jëm maanaam xiifu wala maru yaram wala mën muñ mënee su ko muñ ci xiif boo xam ne xiifub ruux la faraax boo xam ne ci ruux la nekk borom bi ne comme nee na woon bi zikrillahi tatma innul qulub moo tax mu ne waman aarada an zikri kon kon zikri boobu nga xam ne mooy reggal xol ku ko wan gannaaw fa inna lahu maisatan danka ak lu mën a am ci àdduna teewul mi ngi ci maisatan danka dund boo xam ne bu karaj la dund boo xam ne bu naqari la amaa nag faraaxul ruuxi boobu ni muy manifesté ni muy feeñe nit ñi kenn kenn di ko feeñe ci mbooloo yi mooy ñi jàngoro jooju dal te saafara wuñ ko saafara ci suñu borom tabaraka wa taala wax ne moo koy saafara wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifa gis nga kon ku jàngoro jooju dal shifa bi foofu ci alquran la rek wa rahma waaye nag lil muminin da fekk nit ki gëm bu boobaa naqar yooyu mu doon yëg jaaxle yi tumuranke yi tiitaage yi alquranu karim da koy saafara ci bu ko jàngee bu ko settantalee borom bi ne walaa yasidu zalimina illa xusara waxaam ne xad jaatkum mawizatun min rabbikum wa sifaun lima fi sudur gis nga lima fi sudur kon du yaram yàlla waaye xool ba ci boppam ruux ba tumuranke ga ca nekk lool la alquran di faj amma yaram yi moom borom bi def na ci garab yeeg yooyu yu ko mën a yoo xam ne ay matière la comme matière la moom matière a koy faj day def jëli comprimé wala nga jëli pikiir wala nga xooji xob naan wala yooyu ama alquran moom la muy faj mooy tuumurankeeg ruuxu ka donte feebaru ruux googu nag day jàll léeg-léeg ba jàppaale yaram ndax koo xam ne ci du nelaw léeg-léeg bu tiimeew ñam sax du ko mën a lekk kooku dana dem ba loolu dal ruux gi jàngoroy ruux gi jàppaale far yaram bi bu boobaa kon bu boobaa alquran ji la mu saafaraa yaram mooy ba mu saafaraa ruux ga la fajaale yaram ba ndax ba ruux feebaree la yaram ba feebaraale woon ñooñu nga xam ne jàngoro jooju da leen a dal nag te demuñu fa saafara sa nekk dañuy sóobu ay yoon yu bari yu wuute ngir bëgg a faj jàngoro jooju wala buñ ko mënta fajit am lu ko dalal am li ñuy tudde ay at yoo xam ne daal dana wàññi métti bi ba tax ñuy dem di lu ñuy tuddee al atibba an naftaaniyun na ñoo xam ne ay psychologue lañ leen di tudde ñu naan aalim naftaani la ay psychologue lañ leen tuddee nga xam ne ku am jaaxle yooyu dañuy toog yow dafa yow ay science yi la laaj fooy nekk ak fooy àndal ak foo jaaroon ak dina jéem a delloo ci waat daal jéem a réglé waat sam xel jéem a réglé waat sam xel kon booba loolu lañ koy jéem a saafaraan rek rek te loolu sax mooy xëy na ci réew yi Occident yeeg ñi nga xam ne daal xëy na gën nañoo jëm ci wàllu science ak wàllu jàng mbirum adduna ak yooyu ñeneen ñi di ko jéem a saafaraan rek dem ci jibar yi ak borom xarga foofu yi mu taabi zone yi ñi nga xam ne ay dajjaaloon lañ maanaam di woote woo ay daraja ci cër yu nekkul ci ñoom di woote way wilaaya ñooñu itam danañ jéem a dem ci ñoom ngir ñu dalal seen xel ñenn ñi dem ci muskiraat yi ak muxaddiraat yi muy man dal ak yi dooge yooyu yëpp rek ngir bëgg a bëgg a dalal feebar bu metti boobu yi yëg ci biir xol ngir faraax boobu nga xam ne moom la ruux bi am ndax borom bi ne tatma innul xulub day de xol bi dal xol ba ngi rëmm rëmmi mi ngi jóg léegi nga bëgg mu dal nag te borom bi bindoon na ordonnance bi la koy dana bi zikrillah rek ala bi zikrillah tatma innul xulub yow nga bàyyi di leen zikrullah yaa nga ca yooyu yëpp ay e, musakkinaat la wala boog ay muxaddiraat la ñu ne kii daal bu mënta wér métti di ko dorogee dañ ko def loo xam ne diir boog duutu ko yëgati nga léeg-léeg ki nga xam ne pesticide yeeg méthode bi dafa bari danañ jox ko comprimé yoo xam ne wala ñu pigil ko pigil boo xam ne dana nelaw ay wax doo ko jógaat moo tax comme yi comme ñi régime yi am ñoom xëy na léeg-léeg mën nañoo jàpp ndalal nit ñi aw ñam bu dee am njàngit mën nañoo jàpp ndalal nit ñi am njàngum adduna doonte loolu nag du tax xel mi doylu ci lim waroon am ndax njàngum adduna kese borom bi na du xam-xam borom bi nee na du xam-xam daf ne walakin aksara annaasi laa yaalamuun mel na nga ne ah pourtant xam nañ mu ne la yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia waaye wahum an il axirati hum xaafiluun képp ko am xafla ci alaxira mbirum alaxira lépp nga umpale ko amoo xam-xam ak loo mën a xam fii ci àdduna moo tax mu ne dina ci xam zahiran te nag min sax la min min alxayaati dunia néewul yaalamuuna zahira alxayaati dunia waaye min tuuti lañ ci xam li nga xamee ko si néew science bi fi mu ne li ñu découvrir gu moo ëpp fuuf waaye loo mënoon a xam ci àdduna te umpale alaxira amoo xam-xam ndax dundu dundub àdduna ak dundub ad alaxira buñ ko comparé woon mëtt ci sax un virgule nangam pour cent ma ne dundub a doomu adama li muy dund ci àdduna ak li muy dund alaxira bu doomu aadama ko yàlla xasee bind rek moom day dund di continuer day dund di continuer yii ay patas la rek romb ci àdduna continuer nag alaxira waaye patas àdduna bi lu néew a néew la mëtul zéro virgule nangam pour cent ci dund bi nga xam ne mooy dundub doomu aadama su fekkee ne yow sa boobu ci zéro virgule boobu la yem quatre-vingt-dix-neuf pour cent yooyu yëpp nga ëppale ko moo tax mu ne amoo xam-xam kon waxum am axirati hum xaafilu amma xam ne nag mooy mutatallabaatu ruux moom régime yii am amuñ ca dara moom luñ ca mën a def moo tax nag ñuy andi yuy dorogee nit ki ba yëg ba mu war a yëg xalaq baag métti baag yooyu du bari moo tax ñu favoriser nii am foofu ci mbooleem ay façonam moo xam yoo xam ne film lay doon wala ay théâtre lay doon walla ay jongante lay doon lu aju ci bal li ca aju ci football baag basket baag handball baag nangam bal bal bal ba ba muy jeex waaw <laughs> ak bëre ba yooyu yëpp ngir bëgg a daw jànkonteeg waa ewul xayaa bi nga xam ne moom da cee lot ndax waajalu ko parce que ki nga xam ne mooy mën a jànkonteeg adduna bi mën a taxaw ci kanamam mooy ki nga xam ne xaajaat yëpp matal na ko wala boog xaajaat ruux yooyu moom mat na su ko defee yooyu su xaajaat ruux yooyu bu ci ruux gi reggee moom mën naa dékku yi ci def yépp comme ñoom nag amuñu benn dund bu ñuy jox ruux dañ koy gën a xiifloo fu ñu toll dañ koy gën a marloo fu mu toll moo tax dañu bëgg di ko doroge moo tax ñu bëgg di ko doroge ci xobu bari bi ci xeeti dorog yi xeeti sàngara yi ñu dañ ko wërisee sàngara ñu xëwéri xeetu kool lépp caaxaan ngir bëgg nit ki bañ a fullawu ba mën a xalaat ba yëg lu metti li muy dund te lool bu boobaa yooyu ñuy joxe day dolli jàngoro ja moom na borom bi ne fii xulubihim maradun comme fajulu ko nag fasaadahum allahu maradan waaw ah feebar boo ko fajul wala nga di ko jéem a fajalu ko fajul day dee la dee rek bi wax na li koy faj waaw istiraab boobu ak alaq boobu ak kaaba boobu ngeen di yëg ci seeni xol bi zikrillahi tatma innul qulub ñu bàyyi fi zikrullah di ko jéem a faje leneen borom bi ne boobaa day gën a yokku rek su ko defee nag naabu gi sax ak métit boobu am na ñu muy yegg ci ñoom ba parce que mu takki daal yooyu ñu leen di jox itam nag day mujj périmé seen yaram dafay miin ba dugg leen mën a defaj ko moo tax ñenn ñi mujj sax egg ci liñ ci xaar di xaru waaw gis nga même xaru même tàmbali na ci sunu réew mi fi mu nekk xaru yooyu te mooy ay yaas boobu xam ne xunóot boo xam ne nit ki xiif boobu nga xam ne moom la rox gi xiif dem ne ba sës amatul benn yaakaar yiñ ko doon tegal yépp safatu ay lamb jaa ceetaan lamb sax bu koy seetlu bu ko safati leen seetaan football ak seetaani théâtre ak yooyu yëpp du mën a dindi jaaxle gi nga xam ne moo ne ci moom ak tumuranke gi muy yëg bu doroge woo wala mu naan sàngara wala mu yooyu mu giifee rek mu dee mu delluwaat fam nekkoon nag su ko defee rek léeg-léeg muy dem ba tës ba jàpp ne moom dundam amatul valeur amatu fi njariñ te ngëm yàlla nekku fa su ko defee mu jàpp ne moom kon dafa war a euh, jeexal ab dundam moom la borom bi wax ne fa man yuridillahu an yahdiyahu yasrax sadrahu lil islam yasrax sadrahu lil islam ci yàlla namu ci moom mu gindiku jaar ci yoon wu jub ab dëndam day féex xolam day féex ci lislaam mu gëm lislaam waaye wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu wa bayyiqan xarija dënd ba day xat xol bi day xat ak lu mu mën a am ci xat lay dund ka annama yastaadu fi sama mel na kuy yéeg ci asamaan loolu gaa yi doon dem ci weer bi am na ci ko wax ne moom aaya bi daf koo jaaxal ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom mësta yéeg di jéem a def ci kaw ak yooyu ci al isra wal mi'raj def na ko waaye mu bokkul ak ñoom ni ñuy demee waaye ñoom ni ñuy demee ci seen apolo yooyu ñuy dugg dane loo gën a jëm kaw da ngay yëg sa dënn ni sag noo ni muy xate boo gisee ñu yóbbaale oxygène bi ñuy noyyi ndax soo demee ba génn euh, li nga xam ne mooy jaww ji nga xam ne moom moom la du yàlla may ñu wan cee dundu ci la oxygène bi ne booy nooyi da ngay yëg ni muy xate ni ko borom ka annama yastaadu yajal sadrahu dayiqan xaraja ka annama yastaadu fi sama gis nga ni mu ko ka annama yastaadu fi sama ñoom ñi doon dem nee loo gën a jëm kaw appareil bi dem ci kaw ngay jéem a nooyi da ngay yëg noogi ni muy xate da ngay xat ni nga daan féexee di yi ba mu jeex léegi da ngay noo noogi takk bu mën a dem moo tax ñoom bi ñu gisee ay dañu dañoo yéemu bokk na ci yi nga xam ne ay mujisaati alquran la waaye kooku noonu la ko borom misaale ki nga xam ne ak dënnam ubbikuwul ci islam ak lu mën a am ci alal ak lu mën a am ci ay bien xol bi day xat ciw naqar lay dund ciw tiit lay dund moo tax li gën a bari fokk yii lay jëfandikoo ngir mën a dalal boppam waaw benn ma nga ca drogue ba wala sàngara wala mu tux wala mu seetaan ay film wala mu seetaan làmb wala il faut mu def daal loo xam ne dina ko xaw a miisloo xaw koo fàtteloo waaxewul xayaat bi muy dund xaw koo dorogee tuuti ab diir mu xaw a doog a mën a jël ci waat am naa nag Euh, jeexit yi nga xam ne dana ko def ci afraad yi mooy ki nga xam ne day dund faraaxru i boobu kooku day yomba tabbi ci moy tabbi ci bakkaar da koy yomb day bari lu mu ciy tabbi sax ba mujj miin ko ba sax aada ba jàpp ne sax lu mënta ñàkk la su defatee bakkaar du ci yëg benn day mujj dem sax ba di ko biral di ko ñett yi su ko defee bakkaar ba mu yokkaat ca beneen bakkaar li nga xamee ne Buxaari yu ak Muslim solo nañ xadis boo xam ne abi Hurayra moo ko nekk li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kullu ummati muaafan illa al mujahirin nee na sama xeet nag ñi ngi ci jàmm lu muy ñi nga xam ne dañuy njëmmeerlu dañuy biral seen mooy yi ñuy def mu ne wa inna min al ijhaar an yaamala rajulu bi leyli amalan summa yusbihu wa qad satarahu llahu taala fa yaqulu amiltu baariha kada wa kada wa qad baata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitran waasia kooku dañ bi ci egg foofu witt boobu nga xam ne moom la roo gi witt mooy tax du yëg dara lu koy jàpp du yëg benn naqar ci li nga xam ne moom la def ci ak mooy ñaareel ba bokk na ci la muy yëg itam xaswatul xal da yëg xol bu wow xol bu dëgër boo xam ne du nooy ci dara bu am yërmande day mel ne ak xolam ci mat lañ ko def du jeexi talu ci ak waa du faale ak laa biire bu ñu doon jàng ci moom alquran itam ab xolam du yëngu mën naa gis ay néew ñu di ko yanu wala sax mu boobu mu bokk ca ñay yanu néew ba ak di ko suul waaye du am benn jeexital boo xam ne dana ko def ci moom dox ci diggante ay bàmmeel ak dox ci diggante ay xeer ñooy yem ci moom te loolu boo ko seetloo fi mu nekk ñu baree baree bare bare accident ci ñu baree baree bare bu ñu nekkee ci fu ñuy waajale ab néew dañuy mel ne ñu ne ci grand bu ñu fa dajee waxtaan ya ak wuyu portable ya bés sax suñuy suul néew bi sax ba ca armelee suñuy suul néew sax day am ñoo xam ne seen i portable la ñuy sol ñuy wax léegi sax ñuy ree te biir wax de kon ñooñu ma lay xamal ne xol bi dundatul xol bi dundatul ñetteel ba bokk na ci yemuy jur ci nit ki itam duutu rafetal ak jaamu jaamu su demee ba di ko defee pour la forme la koy def nii rek nu mu ca gaaw a génne moom la borom bi naan wa ida qaamu ila salaat amoo kusaala dañ cay tàyyal lool dañ koy def ba génn ca bokk na ci seen ya muy def ci moom itam muy falaaxu ruuxi boobu mooy istixaarul maaruf nit ki day dem ba xeet lu baax duuti yitte woo am tuyaaba lépp luñ ne luy joxe tuyaaba la moom du ca sawar day mel ne soxlawu ko wala ku doyal ay tuyaaba la buñ ne lii lu ñu sopp la lii sunna la mu ne ah gannaaw moom day dooli tuyaaba rek waaye ku ma defuti duñ la mbugal moom kon du fa def naka noonu itam bokk na ci jeexit ya muy def ci moom duutu yitte woo musiba yi dal jullit ñi du ko naqari ndax boobaa li ko boole woon ak jullit ñi amatul ndax jullit ñi leen boole mooy al iman rabitatul iman mooy sax moo déggee nag diw nangam dal na ko loolu nekk la nga yëg ci saxal buum ji leen boole communication boobu la mais su fekkee communication boobu nekkatu fa lu dalul jullit moo ko dal keneen amul ci benn soxla bu boobaa am maa nag li muy jur ci biir société boo xam ne melokaan yii ma tudd ak yeneen yu bari ña nekk ca biir société ba ñoo composé benn benn nit ñooñu ñoo composé bu mel noonu société bu mel noonu desul yaakaar ci moom wenn yiw société lay doon boo xam ne day fees ak i munkaraat mu yu baaxut ay ñaawteef day fees ak xëccoo adduna xëccoo ci wàllu politique muy wàllu doxal réew kenn ku nekk da ngay bëgg a fal bu jëkkoon fal benn rek la ci cër yi doxal adduna na commerçant ba yore commerçant baykat ba yore toolam buur ba yor nguuram wala ministre ba ñoo yem képp kenn ku ne daa am profit waaye biñ demee ne ba gis na nag ñëpp ne booboo baax ñëpp te lañ duutuma bay docteur bi ngir ma falu ñëpp ne dañoo bëgg a falu xëccoo lay daal doon boo xam ne da sot te fi mu ne looloo xew fi ne te bu jëkkoon benn la rek boo xam ne sax yi fi ne sa ko gën a tedd sax parce que yow moom da mi ngi mel ne ñii toog di andi yow ngay séddale waaw ñii toog di andi yorelu dara defarul dara am na ñiy defar di andi rek moom mu yor wattu yi di séddale rek parce que il faut na am ciy séddale loolu rek lay def nit ñi dañuy indi rek li nit ñi am produire ko mu koy séddale kenn ku ne jot àppal kooku ñuy liggéey sax baykat ñoo ñoo ko ëpp nga def waaye bu ko ñëpp ne nag man ci yi laay bokk waaw kon nag kuy toggati léegi wala kuy kuy andi lu ñuy séddale <laughs> du sotti ko loola tax nag bëree lay doon boo xam ne la ko waral nag mooy kenn ku nekk da ngaa gëm adduna jàpp ne nguuru adduna ak daraje adduna loolu mooy li nga xam ne mooy jox nit ci valeur su ko defee nag nga ne du ma seetaan kenn di ko yor may topp su ko defee farax ruux yi boobu itam ci wàllu iqtisaad bi wàllu économie bi daf ciy feeñ waxoon naa la gis nga fa ñuy wéeru ji benn ñoo do wéeru ji ca jibar ya jibar ya di jël seen xaalis bil baatil di lekk alali nit ñi te ñoom duñu liggéey dara nga liggéey fukki junni ñaar fukki junni ñu wecc la ko béjjën wala xaaw waaw waaw xam nga kooku kooku kooku kooku lu mu produire li nga produire kooku jël na ko loolu boobu parce que nit ñi dañoo war di tabaandal mbir yi wala tàkkulu amwaalakum baynakum bil baatil loo jox nit lu nit jël ci yow rek jox boo xam ne bu am njëriñ waaye jël fukki junni jox la xaal xaaw moom mën naa ko jox xiif ci kër ga wala mar wala aw rafle dara mënu ko li jënd ci kër ga kooku ba tax borom bi ne yad'u la man darruhu aqrabu min naf'i bi na ndax weex la nga bàyyi nga fi sa sa mille francs yaa ngi dem darruhu moom li napp nag napp boobu la dégg na moom xamoo kañ képp kañ la daruhu boobu ak rab ndax fi danseel bala ngaa dem mu la bàyyi bi rawa daruhu baa nga napp olama daruhu aqrabu aqrab min napp doonte napp ba sax moom du am kon kooku xam nga ne faraax ruuxi boobu bu amee kon bi muy def ci wàllu iqtisaad bi muy wàllu koom-koom bi kenn xamul lu mu xool moo tax suñu réew yi ku jàpp ne mën nga ma mën a suqali ci wàllu économie ci wàllu développement te boole woo ci ñiy jàngale diine njàngaleem diine mu leer boole woo leen ci du sotti ndax diine dañ koo gëm ba pare gëm nañ ko ba pare te itam nag bu ñu ko jëlewul ca nam wére itam ñu ay nit daal leen cay exploité ca nam wérewul ca bu wérut ba moom boo amul bu wér bi rek gannaaw xam nga gëm bëgg nga montar ba pare benn nga am montar bu baax wala benn ji waaye jaay na koo montar rek gannaaw montar ngay wër bëgg nga montar ne tey tey ma am montar gars yi jaay montar bi ñii original yi lañ yor ñii ay foo lañ yor te yow da ngaa bëgg montre boo yu baax yi nga placé leen bu baax publicité leen ñu jaay gars yi jaay foo montre yi daal di jaay diine ji la demee nit ñi dañoo bëgg diine bu ñu yaatalul ñiy wax diine ju leer favoriser leen jàppandalal leen média yi jàppandalal leen oto yi ñuy mën di dem ci àll bi ci gisee nit ñi buñ ko deful ñi beneen bàgg gi moom Sénégal bi fokk mu jënd kooku nag kon te boobu ñuy jënd foofu boobu nag moom la sax jëm àllaaxira waaye ci wàllu adduna bi rek ni ñu koy c'est nit ñoo xam ne ñu baree baree baree bari du ñu liggéey lu nit ñi liggéey ñoom ñu jël ko di ko dépenser ci loo xam ne du dépense boo xam ne bu war la benn bés nga cay dépenser di ca rey ci jur ne kenn xamul nu mu di ca dépenser ci xaalis loo xam ne kenn xamul nu mu toll lu may leen ngir bëgg koo téye ñooñu nga xam ne foo boobu nga leen jaay su ko defee kon ci wàllu social bi itam alfaraaxu ruux yi boobu da ciy feeñ ndax nit ñi bu fekkee jabar ya la ñuy dem ca borom xarga fuufa yee la ñuy dem ca dajjaaloon yooyee la ñuy dem mooy ñoo ñuy jéem a woote këru diine te amuñu ko ñooñu dajjaal lañ te ñooñu ca la ñuy jéem a dem di faji seen xiifub roox boobu wala ca sàngara sa la dem wala ca drogue ba la ñuy dem loolu xam ngeen ne ki bokk ci kër goo xam ne moom doom la wala wayjur la waaye lu mu am gibar yi la koy yëg lu mu am gisaanikat yi la koy yëg lu mu am dajjaaloon yooyu la koy yëg wala lu mu am drogue la wala sàngara kooku boobu xayaat ijtimaa bu dee këram ak njabootam lu mu leen di taxaw du mën a baax du mën a baax économie ba du baax relation sociale ba a baax loolu mooy sax kon alfaraax ruuxi boobu ni muy feeñee ci biir société bi ak lim ci yàq bari na lool am naa nag sabab yi nga xam ne dana ku andi yu bari la ba ci jiitu mooy sori al ajwa al imaniya muy jaw wi ngëm lu bi daa war dund jaw wi ngëm ndax boo dee dund jaww joo xam ne du jaw wi ngëm ngëm dafa nekkut wala dafa feebal lool boo góorgóorluwul yow it day mujj sa ngëm yàlla feebar na borom yi naan alam yahdi lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dikrillah wa ma nazala min alxaq wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fa taala alayhim al amadu fa xasat qulub gis nga taala alayhim al amad dañ caa dëkk ba nekk ci barab boo xam ne sori nga fu ñuy waxe alquran ak sunna bu leer gëj nga koo dégg gëj ngaa gis nit ñu koy dund taala alayka al amad gëj nga ca mbir ma lool day mujj ñooñee nga nekk loo góorgóorlu góorgóorlu ñi ngi lay wàll te doo ko yëg seen wax yooyu seen waxi bokkaale ya ñuy wax seen waxi kéefar ya ñuy wax nga naan man xam nga buñ ko doo ko wax eh ngay wax da ngay tiit buñ ko bu yàggee bu yàggee nga wax da ah gaa yi daal ñoom lii rek la ñuy wax dañ koy mujj nit dootoo ci wax eh mën nga ko boo demee boo xatoo eh nag léegi wàllu na la waaw di way yàlla gi eh waaye nga dem ñoom di way yàlla ah waaye diw kay di yàlla waaye fay fal non waaw yaa ngi yaa ngi bëgg yaa ngi bëgg accepté de ak bootam comme boobu da nga ko war a sori waaw kooku nag boobaa day boo boo gisee imaam jëmu ci dana nekk daif lool moo tax mu ne fa taala alayhimul amad faxasat qulubu xam si day commencé wow ñaareel ba itam sori al xudwatu saalih yu baax maanaam milieu boo xam ne ña fa nekk dañuy jundu ngëm googu dañuy dund sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu mel noonu ngay dund ci seen biir dafa baa daf lay dëgëral day dolli sa ngëm waaye bu fekkente ne sori nga leen nag moom itam bu boobaa day andi wow xol googu moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ak fi ñu doon yëg yëpp teewul bi ñu suulee yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba maasale ba tegatuñ ko bët ji teg ji ñu ko daan teg bët rek xool gi ñu ko daan xool da daan mise à jour la woon waaw dalay tax diis day day dalay dalay dalay sartewaat boo xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek waxuma sax mu wax waaye boo jëmm ji rek day dolli day dolli moo tax ñu ne fa ankarna xulubana nee na biñ ko suuree ba pare rek ankarna xulubana maanaam yëg nañ ak wéetaay nañ ne am na lu manqué am na lu manqué ci seen xol moo tax kon jaxasoo nit ñu baax ñooñu nga xam ne dañuy dund aqida bu leer dañuy dund sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen gis rek ak dolli ko a sawar waaye boo leen gëjee gis rek loola bu boobaa moom itam day manqué ñetteel ba ci waral foraax boobu sori xam lu xam-xamu sharia mën jàng te jàng nag du jeex jàng buñ ne rek mooy ndonga lay dem di jàng waaye même ci jàng ba dematul ci kenn di jàng yi daa war continuer di jàng alxuraan si dafa war di jàng di ci waaru téere boroom xam-xam yaa ngi fi muy continuer di ci jàng téere yi nga xam ne ña ko doon bind ay ulama rabbaani yoon lañ maanaam li ñuy wax ci xam-xam noonu lañ ko fase loolu lañ ko doon dundee loolu dafa bokk la yi nga xam ne moom théorie bi rek lay wax nii moom kookee boo koy jàng ruux bi mu ko doon waxee ak ngëm gi mu ko doon waxee daf lay alimenté waale da ngay dugaale da nga koy yëgaale day dolli waale sa ngëm yàlla ba tax ñii jàng seeni téere itam war nañ koy seet bu baax lu doon koo xam ne kii boroom xam-xam la boo xam ne lii muy jàngale lu wér la te itam moom la doon dund ba waaye su fekkee nag wér na waaye sax daawu ko dund ñàkkal solo ñàkkal dund googee day feeñaale sax ci biir ay waxam na muy cofe mbir ma da koy cof am naa ka koy dund dëgg moom mbir ma day ci moom ba buy wax lépp may wax wuj daanam ak xolam ak lépp may wax naka noonu itam bokk na ci yi waral faraaxu ruuxi boobu soxla woo nag adduna rek wala soxla woo nag ak njaboot rek soxla woo wut adduna ak topp sa sa njaboot saxalat naa am waalu wa ahluna bay na ahlu wal walat rek nga xam ne si ite yépp loolu la ba borom ne yaa ayuha amanu laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an zikrillah gis nga zikrillah rek de ndax mooy tatma inul qulub mu ne ngalawaay seen alal yi wut alal sab liggéey ak toppatoo sa njaboot bu mu dox seen digganteeg zikrullah ba seen xol di seen xol di wow seen ruux di am faraa parce que toppatoo alal yitte woo sa liggéey demal dikk sa kër ak sa njaboot rek rek mooy sa yitte doo teew ci jàkka wala doo teewee waxtaanu diine wala jàkka ne boo teewee boo sëlmal rek gaaw gaaw ngay dem bu ñu am na ci waxtaan wala am na yow nga ne amu ma jot xam nga say dàll jàgg ngay ndax ne sama liggéey ko laaj wala sama kër ko borom bi ne waman yafal dalik fa ulayka humul xaasibun koo xam ne dem na ba ñaar yooyu rek rek fii moom loolu la ñuy jàppe ko am ku la ñu ne moom liggéeyoo këram rek amwaalukum wa awlaadukum rek waaw xalat naa amwaaluna wa ahloona man daal maa nga sama liggéey maa nga sama kër gaa yi dañuy caaxaan rek xaaral man ma liggéey waaw am na loolu bu ñu doon doon fii de ñi ñu liggéey xaaral <laughs> xaaral xaaral man ma liggéey waaw waaw amwaaluna wa ahloona ci laa nekk borom bi ne dëgg la baax na waaye laa tulhikum bu mu leen fàtte rijaal yi dëgg wala bayun an dikrillah wa iqaami salaati wa itaa zaka ñoo ñooy rijaal wala leen ñoo di way di way waaja yàlla moom moo xam ciy waaja yàlla ne rijaal gaaya mooy nga xam laa tulhiihim tijaaratu wala bayun an dikrillah gis nga duñ bàyyi dikrullah dikrullah boo ko bàyyi rek al waaw yaskuruuna laaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubi doo ko bàyyi benn yoon ndax tatma innul xulub ci la xol bi dale xol bi nag bu dalatut bu boobaa euh, jàmm dutul am am naa nag jàngoro ji ku mu dal ba pare wala iyaasu billah noo koy saafara dal dal na lu baree baree baree bari nekk ci jullit ñi xëy na egguñ ci paraax ba mu widd ba jeex waaye nag manqué na lool ren charge portable bi daal wàcc na lool war nañoo sartewaat war nañoo sartewaat la ca jiitu mooy jàng alquran rek di ko settantal ndax moom mooy zikri bi mooy zikri bi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala wàcce nga xam ne mooy saafara jàngoro ji nekkoon ci xol wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaa wa rahma lil muminin amma noo ci saafara woo nag mooy nga di ko jàng di ko settantal di ko tadabbur afalaa yatadabbaruuna alquran njàng mi la doyut waaye njàng mi day ànd ak tadabbur kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yadabbaru ayaati wa li yatadakkaru ulul albab tadabbur tadabbur ba mooy gannaaw boo tafahum gannaaw bu fahmu ba amee ba noppi nag tadabbur ba mooy nga wàccee ko ci sa waaqiul xayaa waaw bañ rek di jàng rek gaa yi la ñuy wax de ñoom Abu Jahlin te ñu xam de ci nga bokk de waaw yàlla bañ ne ko ay lazina lay def lazina moom ni ma ko pare misaale formulaire la rek ku ne lañ fa mën a ràbbali dëkku boo dañee ko bind muy moom lazina ah. <laughs> da ngay ràbbali rek dañ lay ku ne dañ lay ba pare bàyyi ay yi teg teg inna lazina amano yi ma dafa beneen formulaire la ah. lësine juree moom am na fu am na fa ku fa da nga fa am place kon nag da koy wàcce xam ne ci nga bokk xëy na ña la ca jiitu moom ñoo ci njëkk a jaar ñoo a remplir waaye formulaire yi jeexut ñu ngi ñu teg waaw formulaire yi jeexut de bokk na ca itam nag yëg màggug suñu borom gi tabaraka wa taala ci xam turam yéeg meloom yi ci di ko seetantal di ko bàyyi xel foo toll jëf juy jëf ju nekk wala looy def lu nekk nga bàyyi xel tur wa tolloog loola tur wa tolloog loola sooy wax bàyyi xel sa neex lan lay dégg sooy jëf bàyyi xel basir sooy làkk di am dem na bàyyi xel raqib xafiis nga xam ne mi ngi fuglu mi ngi sàmm mboolem mooy def tur yooyu soo taxoog moom di ko bàyyi xel loolu dana dundalaat laa xol bëggal yàlla di dëgëraat bu baax ñetteel ba nag bañ a bàyyi nag wut xam-xamu sharia jàng ci façon bu mu mën a doon bu ne man amatu ko jot dëgg la aw jàngin moom mën naa dem ba nit ki façon jàngin yii moom mënatu koo jàng dem ca daara ja toog moom mën naa am mënatul lu mel noonu waaye jàng kenn du ko bàyyi benn yoon waxul rabbi fii di nee ilman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la borom bi wax ne ko ñaanal lool comme moom ñu borom bi tabaraka wa taala doon jàngal di wàcce ci moom xam-xam bi moo ko wax ne ñaanal ñu dolli la kon nag ñun ñi nga xam ne même li ñu wàcce ci moom sax ñun loolu lu ca bëri xamuñu ko fi nekk li nga xam ne wàcc na wécc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci ba pare lu ca bëri kon nag loolu wóolu ñoo bàyyi benn yoon di ko ak di ko moo tax sax moom kenn ko bàyyi te jàpp ndal yi bari na lool moo xam bande yooyu déglu la wala MP3 yooyu déglu la wala ci sud yi nga xam ne daf dañ ca njàngale yooyu nga di ko déglu wala dars yooyu teewee di ca jàkka ja a sukkandiku yooyu ci moyen yooyu rek nag ba bàyyi dem ci borom xam-xam yeeg nit ñi loolu itam bu ñu ko bàyyi ndax yooyu yu dimbandikoo la la mais nag du tee ba tey fas alu ahla zikri dem leen laaj ahla zikri dem leen ci ñoom xam ne yooyu dégg la nag ci bànde a loo xam ne leeru la doo ko mën a leerlu kon nag di dem di toog ci jotaay yi boroom xam-xam yi itam nag buñ ne léegi band yeeg MP3 yeeg yooyu doy na man duutuma dem lu mel ni tey bu ñu waxee nga ne bu ngeen paree andi leen ma band yeeg waaw léeg dem gi da ciy baax de teewaay bi da ciy baax naka noonu itam di bari al amalu saaliha mooy di sarse sa waxtu bañ a am temps boo xam ne bu witt la comme Abu Bakr Sadiq radiallahu anhu ni mu ci joxee woon misaal bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajee benn di saxaaba yi di leen nattu ba xam seen temps ndax bari na am na luñ ci bàyyi muy witt wala déet ak jullit amul benn temps bu war a bàyyi muy witt ndax dund bi dafa xeer te dund bi benn force la boo xam ne laa tatakar al amru fursatun laa tatakar du ñëwaat de benn occasion la boo xam ne nga ñu dem ñu naan law an la naa karra law an na la naa karra mais karra du am kon jamono bi nga fi nekkee na nga xam ne eggagoo ca law loolu bi sallallahu alayhi wa sallam kan ah man de woor naa mu ne kan moo topp tey am néew mu ne ah man de topp na mu ne kan moo leel tey miskin mu ne man de leel na mu ne kan moo seeti tey ku feebar mu ne man de seet na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne majtamaana fi mri'in illa daxala aljanna rawaahu muslim ne yii day du daje ci nit lu dul dugg na àjjana li muy tekk rek mooy li borom bi ne fastabiqul xayraat jëkkante leen yu baax yi même liñ naan fardu kifaaya la del bokk ca ña koy def kifaaya waaye bu ne bu gaa yee rek mu doy ña koy tax a doy day ca waaw robi néew ba nag gannaaw fardu kifaaya la gaa yi dem na del bokk ci li koy def kifaaya ab jullit wër ta xeeb ci aw yiw dara bokk na ci itam ci yi koy saafara mooy nag di tiit mujj gu ñaaw suuxul xaatima bañ a gaaw a naagu bañ a jàpp ne yow tey mbir lijjantiku na ba pare yow dee rek moo la tee dem aljat déedéet dëgg la da nga yaakaar waaye nag deel xamagoo fooy mujj moo tax ragal mujj gu ñaaw dana la di tax di xëri ci jaamu yàlla foo toll bañ a naw li nga weesu waaye li ngay xool ndax li ci kanam lu mu rafet rafet waaye nga mujjee loo xam ne ak doye di la ak jëf ju ñaaw la ah loola nag bu boobaa du tax nga am fasunul xaatima bu boobaa naka noonu bari noonu tudd suñu borom tabaraka wa taala yaa ayyuha alladina amanu zkurullaha zikran kasira ci ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag jàngalee askar yi nga xam ne moo rot te wér te façon yaa ya ya amul lim nga wutal ko lim lu amul lim nga bañ ko wutal lim tënk ko ci sunna loolu itam jullit bi war na koy bari lu muy def naka noonu itam nag muwaalaatul muminin nga def nag ñi gëm yàlla say farandoo say féete te bañ nag di féete ñi nga xam ne ay yéefar lañ muwaalaatul muminin wa muaadaatul kafirin loolu bokk na ci li nga xam ne day dëgëral pas-pasu ngëm yàlla ci xol asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain kon mbokk yi ñun ñoo àndoon ak yéen di déglu waxtaan woowu am solo di daafal iman ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dooleel ñu dooleel tunu liimaan sëral ñu li nga xamante ni moom moo di daafal iman di ngëm goo feebar di ñaanal mbokk yi ñu doon déglu ci yooga bi jaamu yàlla borom subhaanahu wa taala ak xéwalam eh, di ñaanal ñi nga xamante ni dañoo nekk ci ay jafe-jafe ak ay xat-xat yàlla borom subhaanahu wa taala teggal leen jafe-jafe yi ak xat-xat yi woy dawli yi ñu leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala jéggalu yàlla ak yërmandeem mu dëkkal leen ci àjjanay firdawsil aala kon dañ leen jox dig dëgg ci semaine biir ñëw allah allahu rabbi wa jazakum allahu anna xayra wa an almustamiina jamia wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh